Assalamu asalaamaaleykum suñu mbokk internetu Kéwoulo TV ñoo ngi leen di nuyu bu baaxa baax ñoo ngi fii ci bidiona fi nga xamne nak mom lañuy jaayé li nga xamne modi moo mbam ngir waajal li nga xamne nak modi 15 août bi suñu né 15 août bi nak yaakaar na ñepp war nañ ko xam ndax moy ascension la montée de Marie vers le ciel moo taxoon nag ñu daal fi tew la ci ñi nga xamne nak modi moo di jaaykat yi nak lañuy jaayé li nga xamne modi mbam bi est-ce que prix bi cher na est-ce que tamit client yaangi ñew ñëw nan lañ koy waajalee ak ambiance bi fi am léegi léegi lay door Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Et je préviens pour souhaiter une bonne fête vraiment aux catholiques. Voilà. Mais il plus cher dans Cher dans association consommateur. Parce que vraiment, ça coûte très cher. Mais aussi, nous demandons au gouvernement d'aider les éleveurs de porc. Parce que si on les aide, c'est aussi euh, l'occasion que les jeunes puissent trouver un emploi. Donc l'élevage de porc marche très fort au Sénégal. Donc il faut les encadrer et les aider. Mais aussi, ils ont besoin de marchés modernes. Vous avez vu, nous sommes dans les baraques. Il y a la, promiscuité. Donc vraiment, c'est pas bon. Donc nous souhaitons que l'État puisse vraiment aider à vraiment construire un marché moderne pour le port. Parce que même Dakar, il n'y en a nulle part, à part ici. Donc moi, je viens de commencer, vous voyez que c'est loin. Voilà. En tout cas, bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tous les catholiques. Il y a nga heure yi wàcc nga ñëw mais bu ñu wàccee nañ ñëw parce que ñu bari ñu ngi liggéey ñun à partir de 7 heures du matin 8 heures du matin nous sommes ñu ngi fii mais prix bu ñu ko augmenté depuis daaw au moins kii Toussaint ba léegi même prix maintenant mooy 4000 waaw ñoo ngi waajal nànk-nànk rek nànk-nànk rek di woote rek client yi mën a ñëw waaw ndax mu neex ci man seen feet ñoom itam mën neex fait <laughs> effectivement ils ont augmenté d'un 1000 francs avant on était à 2000 ensuite 2500 on venait à 3000 3500 maintenant on est à 4000 donc ça coûte cher pour nous surtout moi j'ai trois troisième donc je suis en retraite et ça coûte cher en tout cas nous prions vraiment pour que les intrants qui tournent autour du port puissent diminuer et que sinon on puisse trouver notre notre euh, bonheur. Voilà, nous souhaitons vraiment que les prix baissent. Ça coûte très très très, très cher. Très cher. 4 000 francs le bœuf, 4 000 francs le porc. Donc tu as vu, c est, c est, c est, ça, coûte, ça coûte cher. Ah, Béry encore. Béry, mon, mon cher ça. Parce que Béry, là, ça coûte 1000 francs. Vous avez vu Et euh, personne casse, personne euh, ne, marche parce que ça. Pour dire que ah, Béry Cherna, à ah, Cherna. On est obligé, nous faisons, nous faisons. Mais, vous savez, il y yëpp wàññeeku. non yàpp mbaam moom 4000 la. waaw parce que depuis daaw nañ ko yokk waaw 4000 lañ koy jaayee léegi quoi oui. daaw 4000 la woon. nañ ko yokk parce que ñu ngi ko yokk gan la le 22 décembre lañ ko yokk. ah ñoo ngi nii rek di waajal nànk-nànk rek nekk si njaay mi di xaar client yi ñu parce que bu tawee xam nga xam nga Sénégal mënu mënu dox ci sous la pluie. waaw léegi nag kii mais bu taay ba pare surtout hivernage fa la doxe mooy lan xam nga fii bu xiinee bu ko tawee guddi ci lay bëri ci pêcheur bëri du ñu dem ci géej léegi nag lendemain ci lay mën nañu bëri. non fii moom fii moom fii moom loolu moom nekkul problème kii quoi parce que fii moom lu muy taw taw gars yi moom noonu nañu gën a ñëwee parce que fii moom nekk na kii boo xam ne gaan amul problème ndox quoi waaw. lu muy teewee ne gars yi di gën a ñëw di jënd si mais te 15 jours bi sax mais tey tey daal moo nekkoon jouru marché bi waaw parce que nga suba fii la parce que ñu bëri du ñu am jot pour ñëw dugg si quoi. ay gis nga ko de ay jigéen dañu wooloo doon benn waaw di góorgóorlu rek nag. marché bi c'est le seul marché benn marché rek ci Sénégal amul foo xam ne bu nga dégg fu ñu jaay yàpp mbaam ku dul bi Bignona Dakar ñuy seetlu. kaw Kaolack ñii feneen bu Ngona bu Dakar mooy marché bi donc euh, état moom ci boppam war na jël engagement mu ne dina tabax benn marché comme c'est un marché marché d'une communauté war nañu ko def moderniser et c'est du tabax parce que aussi lu tax ma wax am na xale yoo xam ne dañu yëngatu actuellement ci mbaam yi et xale yooyu mun nañu dem agressé mais def leneen ñu sàcc ñu def leneen Nous sommes, mais aussi, c'est-à-dire, euh, moi je peux dire, en tant que président du marché, je peux dire que je suis un créancier d'emploi. Parce que je n'ai ni vu. En c'est l'iguille. Je peux dire que je suis un créancier d'emploi. Maintenant, si l'État, bon, ramené beaucoup de défendu, défendu, perfectionné un marché, légui nak euh, liguey na tam site yo xamné nit yi fofu lañu rayum ba rayum yar mbami ci milieu xam nga évêque kii marché mi yëpp fii lay ñëw léegi rek loolu yëpp day gën a encouragé jeunes di gën liggéey te ñu dem feneen au lieu ñu def leneen nii ay lu salte yi léegi rek euh, kii xam nga ku gagné ku gagné cinq mille aujourd'hui gagné na cinq est-ce que dina soxla dem kii et ku liggéey ba sonn est-ce que dina dem agressé est-ce que dina sola dem kii parce que sonn na ku liggéey bee wàcc sonn day reposer tranquillement non Diama tamit war nag tamit gëstu marché parce que tam marché bi nekk na marché boo xam ne euh, plus de plus de cinquante ans ba léegi marché bi mënagul changé mënagul kii si dara war nañu mën a jàppale ñu xoolaat beneen solution wax na kaa ma defaraat marché bi quoi. ah xanaa taalal ko loxo rek mu jàppale ñu ci marché bi ndax c'est le seul marché du port au Sénégal apparemment waaw ñu mun ñoo defaral suñu marché bi suñu njaay bi daal gën a xaw a ay conditions yi gën a oyof ci ñun. parce que comme li nga wax nawet bu ñëwee dañuy sonn ndox bi dañuy sonal gis na suñu toit yi day endommagé. lii lañ leen andiloon fii nag ci Bignona ginnaaw bi ñuy waajal li nga xam ne moo di 15 août bi 15 août bi nag ñoo koy jagleel ki nga xam ne nag moo di maman Marie la tax na nag gis ngeen ñi nga xam ne nag moo di jaaykat yi nee nañ nag ren nag gis client yi daanaka ñoo ngi ñëw ñëwuñu waaye nag ñi nga xam ne nag ñoo di ñuy fi ñëw pour jëndoon yàpp nee nañ yàpp bi cher na trop trop trop ndax kilo bi moo ngi ci toll ci 4000 francs ba tax na nag ñoo ngi leen di jox dig daje ci beneen tam incha allah jërëjëf.